sànq di wax seen nànk tàngoo waaye euh, G20 yow G7 nga bokk waaye G20 mu nekk euh, benn syndicat de jàngalekat bu féetu bu fee tamit naam sax euh, yéen waaye G7 yéen a gën a représentatif ñoom ñu gis ne carrément ñoom commencé nañ semaine passé seen grève mun nañu wax ne ñoom ñu ngi seen deuxième plan d'action yéen ngeen nekk ci première plan d'action comment ça sa ça s'explique yéen ngeen nekk syndicat jàmb jàngalekat bu gën a représentant fii ci Sénégal ngeen nangu waaye g di leen di devancer xeex bi. waaw xam nga euh, séentu weer jaruta buuxante séentu weer rek kii mën na yéeg ci montagne bi kii mën na yéeg ci stade Demba Diop kii mën na taxaw ci bus bi buuxante syndicat ku mu neex créer sa syndicat mais damay fàttali ni ñun histoire boobu dépassé nañ sa élection sociale lañ ko tuddee boo demee bureau internationale du travail léegi dañu ne ñoom bu ñuy waxtaan au niveau international dañuy waxtaan ak les organisations syndicales les plus représentatives Sénégal élection de représentativité dooruñu ko ci syndicat enseignants yi ñu ngi ko dooree ci centrale yi mm. Sénégal amoon na ñaar fukki centrale ak lu ko topp ñépp doon dem Genève nguur gi ne loolu mënatu ko mm. mu organiser ay élection bi mu ko organiser ñeenti syndicat yu gën a central yu gën a représentatif ñooñu lay waxtaanal ñooñu lay jox subvention bi ñu toogee ci jëmmi jamono ñun syndicat yi ñu ne ñun gis nañ ñun dañoo bari parents d'élèves yi association parents d'élèves ne syndicats yi dañoo bari gouvernement bi ne syndicats yi dañoo bari acteurs yi ne syndicats yi dañoo bari ñu ne ñëpp d'accord ñu ne nañu dem élection bi ñu dem élection lépp dañ ko waxtaanee bulletin bi sax dañu koy stabilise ñu dem élection bu ñu demee élection arrêté boo xam ne Mansour Sy moo ko signé président am si copie premier ministre am si copie ministre de l'éducation am si copie ak ñëpp ñoo xam ne ils sont dafa ne article cinq syndicat boo xam ne ci élection yi dix pour cent amoo ko mooy ñaar fukki xob yu ne amoo ci fukk nguur gi du wax ak yow doo bokk ci concertation doo bokk ci négociation doo bokk ci commité dialogue social secteur éducation doo bokk ci dara parce que nguur gi ñu représentatif lay waxal ñëpp d'accord ci loolu arrêté boobu ñu ngi ko signé en 2016 un an avec avant les élections ñu dem élection nag bi ñu demee élection jàngalekat yi tànn parce que jàngalekat dafa uteex politicien jàngalekat buy tànn day tànn en fonction xool lee ñoo xam ne am nañu profil am na ñu posture bi am nañu charisme xam nañu njàng te intérêt njàng bi moo tax ñu jóg ñu tànn syndicat yooyu mooy les syndicats les plus représentatifs loolu mooy dëgg maintenant nag ku mu neex xam nga jàkk moom ku mu neex nodd waaye jàkk goo gis am na imam am na noddukat ku mu neex nag ñëw ne day waaye doo ñëw noddu ci micro bi de jàkk yi du ko ñëw rek noddu. kon loolu vraiment waaye yéen waa G7 su ma déggee yéen imaam yi. non dama la bëgg a wax ni ñun ñoo gën a représentatif. waaw loolu moom leer na loolu leer na nañ. Mm. wane nañ ko bi ñu lancé plan d'action mu ma fekk man ndar may def tournée Ganjool Paal euh, Gandon Ngaleel école yëpp def ngandam AG Feder. mais bu ma jógee Ndar ba Dakar école amul école bu jàng ñëpp dañu observer mot d'ordre bi débrayage bi démb ñu def ñu def marche bu rëy rëy rëy journaux yëpp ñu ngi koy wax sites yëpp ñu ngi koy wax réseaux sociaux yëpp ñu ngi koy wax loolu moo tax sax président de la république dégg nga conseil des ministres wax nañ ko parce que nag ku gis naaj ne naaj a ngi ni xam nañu ne ñii jàngalekat yi tànnoon nañ leen mais tey jàngalekat dañu confirmer seen vote dañuy wan président di wan gouvernement di wan ministre yi. ne ñun ñu ñuy euh, toogal ñuy yore suñuy revendication mooy ñii ñoo xam ne ñun ñoo leen tànn. dama leen démocratique juwaaloo euh, bi am seen diggante yéen waa G7 ak euh, yéen waa G20 est que ça sert carrément à l'école sénégalaise ou bien le système éducatif. déjà li ngeen revendiquer yéen a ko bokk pour vous ne vous retrouvez pas autour d'une table ngeen toog waxtaan. jàkk bi tey juwaaloo amut. Hmm. lan moo am G7 kenn créé ko G7. jàngalekat ñoo tànn G7 mënoon na doon G8 G9 G7 c'est un une structure légitime dañu am légitimité parce que loolu mooy joxe légitimité boo gisee ñuy def élection c'est pour la légitimité xam nga mënoon nañ fal président ne ko da nga fiy toog fukki at fukki at ak juróom boo gisee ñu ne cinq yu ne wala sept ans yu ne dañuy fal président bu bees pour que peuple bi renouveler la sa confiance nga am légitimité pour nga mën a gouverner sereinement ñun dañu am légitimité parce que ñoo xam ne jàngalekat yi olof Njaay nee na kaa ñu fal la moo gën fal leen ma jàngalekat noonu ñëw leen wóolu nañ leen am nañ yaakaar ci yoon mat ngeen ndaw mat ngeen leader yéen ay porté suñu revendication juwaat loo amul G7 élection yi moo ko indi leneen nag nun suñu yoon neewu ci dama ne séntu weer jarul a buuxante. <laughs> d' accord euh, yéen waa G7 euh, gis neen aussi euh, si ay écho yu ma am ba ngi doon amal seen ay préavis de grève da ngeen a déposé séparément lan moo waral mbir moomu ngeen nekk si benn collectif ngeen déposer déposé préavis de grève séparément. xam nga dama la wax G7 créé ñu ko G7 du syndicat. intersyndical waaw intersyndical. intersyndical syndicat nag buy déposé préavis day déposé préavis sur la base parce que dafa am récépissé. Mhm. yaa ngi dégg. Mm. te syndicat bu déposé da ngay couvrir ñeneen ñëpp. parce que élection yi suñu plan suñu euh, plateforme revendicative moo ko jiitu mm. mais tey dafa am des questions transversal la question des lenteurs administratives est une question transversale muy syndicat ya G7 yépp nangu nañ la question du système de règlement est une question transversale la question des prêts DMC est une question transversale boo jëlee tey prêts DMC yi nguur gi daf ñu ne woon daaw bu ñuy signé protocole d'accord yi danaa verser euh, lu mat fukki milliards ñaar pour ñépp ñoo xam ne Euh, war nañ leen jox prêt danañ leen ko jox mais ci fukki milliards yi nga xam ñaari nguur gi juróomi milliards rek la ci vers donc boobu tam respecté wu ko bon aussi boo jëlee professeur sport yi nguur gi dafa ne woon damay reverser MEPS boo déggee MEPS mooy les maîtres d'éducation physique ñu bëri ñu ngi jàngale ci lycée yi collège yi du ñu ay professeur ay maîtres d'éducation physique la léegi nguur gi nee na dama cour corps boobu dama koy éteindre dama koy mooy je vais procéder à du corps maanaam dama koy supprimer créer corps bu bees mooy le corps des professeurs de collège d'enseignement mooy en EPS mais loolu pour ñu def ko foog ñu modifier deux décrets mooy la le décret 77 1177 et le décret euh, du 30 avril léegi loolu day permettre ñu reverser ko mais dafa am tey 84 professeurs yoo xam ne ñu ngi ci système bi mais mënuñu leen dugal fonction publique lu ko waral mooy parce que justement amuñu cadre juridique beneen mbir mi mooy tey am na cent soixante dix huit professeurs yu génn CNEPS yoo xam ne dañ leen tàggat former leen ñu am lijaase mm-hmm. ñu ngi chômer te jamono yooyu nguur gi mu ngi recruter lu ñuy wax des chargés de cours en EPS ñu lancé appel à candidature ñun ne na loolu mënuñu ko nangu xam nga lu tax professeur EPS. Mm-hmm. dafa uteex professeur sport parce que EPS. da day def éducation physique et sportive da ngay jàng lu ñuy wax l'anatomie du corps da ngay jàng la psychologie du sport da ngay jàng la sociologie du sport dafa utee ak professeur sport koo xam ne sport rek ngay def moo tax nag et puis danger la sax koo xam ne xamul anatomie du corps nga ñëw rek jox ko professeur sport parce que professeur sport xam na heure bu muy entraîner loo boo euh, élèves yi xam na heure exercice yi nan la koy defee xam na yenn gym gymnastique yi nu mu koy defee parce que dañ ko ko jàngal parce que dafa am xam-xam bi loolu moo tax danger la sax jël koo xam ne tàggatuñu ko formé wuñu ko di ko def professeur sport loolu aussi c'est une question transversale. léegi si question transversale yi ngeen bokk yéen waaye G7 euh, euh, wax nga sànq wàllum euh, insertion cent mille demandes d'intégration à la fonction publique. Mm. nga xam ne la ministre Mariama Sarr recevoir woon ne leen jeudi bi passé si trompe pas. promettre woon ne dina de dugal na cent mille euh, mu am lu mu des est ce que tamit euh, ak yi boobu war ngeen ko jël tamit euh, xalab ko. no ñun xalabuñu. léegi mm-hmm. xam nga olof Ndiaye dañee protocole bi xam nga lan mooy boo liiroon protocole bi bu mm-hmm. baax premier ministre dafa ne man premier ministre man maay garantir accord yi. bi ñu koy signé ci teewaayu premier ministre bi woon. mais est-ce que Sénégal nag le fait Sénégal amatul premier ministre nga xam ne Boun Abdallah Dionne moo nekkoon seen interlocuteur est que nekkul loolu moo xaw a naxasal tuuti seen revendication yi benn instant. non dama ni premier ministre. Mhm. bu fi nekkoon Boun Abdallah Dionne. Mhm. moom moo ne woon may porter garant. gouvernement moo ci ne ba tey. Mhm. Boun Abdallah Dionne boobu tey mooy secrétaire secrétaire général du gouvernement kon mu ngi ci nguur gi ba léegi. bu nekkoon ministre tam xam na lu xew parce que l'équipe gouvernement gouvernement c'est une équipe mm. gouvernement gouvernement équipe la il y la solidarité gouvernementale même bu nekkatul foofu moom ak kii bi parce que gouvernement dañu ne la continuité de l'action publique mm. moom lu mu def keneen bu ñëwoon sax remplacer ko day continuer moom lu mu doon def du ku ñëw wax li nga def on est dans le cadre d'un gouvernement dans l'action publique ñaareel bi euh, mooy protocole bi dafa am ay délais ba pare dafa am ay engagements yu nguur gi jël xam nga dama ko wax ci benn plateau dama ne tey équipe nationale Sénégal bu ñuy dem équipe euh, Coupe d'Afrique bu ñu ganee woon équipe yëpp dem sax dóor Argentine bu Messi ñun loolu taxul loolu yëngaluñu objectif Sénégal tey mooy bu ñu demee Coupe d'Afrique ñu indil ñu coupe bi boo jëlee ci kanamu syndicat yi nga jël ay engagement nga ne app bii dix mille mises en solde dinaa ko def defoo ko boo demee solde ñu ne la amatuñu instance lanteur administrative yi moo tax lenteur administrative tax tey jàngalekat yu bëri danañu dem à la retraite te duñu plafonné mm-hmm. nga ne dinaa apurer maanaam dossier yu nekk ci circuit visa signature yépp danaa ko génnee génneewu ko loo mënti génnee objectif bi atteindre ñu ko ñun foofu la ñuy waxee tey xaar gi dafa yàgg juróomi at a ngi nii même revendication la jàngalekat yi di posé mooy respect des accords mooy lenteur administrative mooy la question des administrateurs scolaires tamit parce que tey jii école yi ñu ko jiite nu ñu tudd directeur principaux mm, proviseurs mais dañu ne nañu créer le corps des administrateurs scolaires professionnaliser corps bu ñu ko professoral yi ñoom dañu war a am ay euh, compétence en management gestion du budget gestion des ressources humaines parce que gis nañu ni ñoom condition ñu nekkee baaxul boo demee tey euh, lycée Charles de Gaulle boo demee bi ci bureau censeur bi sa yaram day daw parce que bureau bi nu mu mel mais c'est c'est c'est pas digne d'un d'un d'un d'un responsable d'établissement waaw si loolu sax laa bëgg a xuus parce que euh, seen revendication yi leen rek euh, moo si xaw a gêner les Sénégalais euh, bien vrai que mun nañoo jàpp ne ay revendications yu yu yu yu noble la mais la plupart du temps dañuy dégg affaire yi yokkute fii plafonnement yooyu ngi lañ gën a dégg te gis neen fii si Sénégal xale yi dañuy jàng si ay abri provisoire naam sax bokk na seen revendication mais da ngeen koy def si cat bi si suuf. Mhm. est-ce que loolu aussi ça pose pas problème. non suñu ko def ci cat. ah man de bi koy xam nga jàngalekat yi <laughs> jàngalekat. Mhm. lu mu njëkk a mooy defi bu ñu ñun suñu suñu suñu defi mooy tey la qualité du système éducatif. bu ñuy wax qualité la qualité day interroger l'environnement scolaire. Mhm. mooy lépp lu wër école bi. bu ñu waxee lu wër école yi mooy classe tey am na juróom benni junni abri provisoire nguur gi dane woon da koy changer mais dara amu ci loolu ñu dénoncé nañ ko abri provisoire yooyu noonu duñ leen gis ngeen ngeen porté ko euh, au non da ñu dul ñun dañ koy déglu xam nga aujourd'hui lu Ignacio Ramonet di wax mooy le rédacteur en chef du monde diplomatique dafa ne y a le journalisme d'investigation et le journalisme sensationnel. Mm. tey lu bëri sensationnel moo leen intéressé mais ñun la question. de de la qualité du système éducatif des de la qualité des enseignements apprentissage sensationnel boobu noonu est-ce que nekkul vous les acteurs yéen a koy jaay les journalistes non non ñun jaay ñu ko moo tax foog nga déglu ma wax la foofu boo jëlee tey mbirum xam nga wax naa la ko nga jël environnement scolaire mm-hmm. abri provisoire ñun ñoo ko dénoncé bi nguur gi ne dina leen remplacer mais engagement boobu respecté ko tey juróom benn junni abri provisoire moo mm-hmm. mais lu ci gën a doy waar tey boo demee Saint-Louis ay écoles yu mel ni euh, école euh, Njawar Sarr euh, collège Njawar Sarr nga dem école yu mel ni fële Guet Ndar les écoles primaires Cheikh Touré mais école yu bëri dañ leen tëj parce que école yi ñu ngi ñu ngi nekk ci état boo xam ne wóoratul sax nga ciy def ay kii les les établissements peuvent s'écrouler sur leurs pensionnaires moo am lycée Marsassoum moo am lycée Mame Cheikh Mbaye bu Tamba parce que lycée Mame Cheikh mbay bu Tamba ñun dénoncé nañ ko bi gouverneur jël arrêté ne nañu tëj lise bi beneen mbir bi mooy effectif pléthorique yi tey jii. Mhm. da ngay gis ci classe yi cent élèves lu tubaab naan ratio. waaw parce que dañu ne la caille caille pédagogique mooy classe warut a weesu. Mhm. juróom euh, quarante cinq ba juróom fukki élèves. mooy cinquante élèves mais tey dafa am des des effectifs pléthoriques. mais leneen lu ci doy waar mooy déficit enseignant tey jii dafa am déficit enseignant en EPS en maths. en en en philo. Sénégal moom léegi amatul sax euh, professeur de mathématiques. mais loolu laay wax ni léegi pour ñoom ñu régler problème déficit bi nu ñuy def waxtu yu xale yi di jàngi foofu foog parents yi xam nga dañ ko wàññi maintenant conséquence bu mu am ci élève yi mooy waxtu yu mu war a jàng du ko jàng.